leen bu baax ah, yéen ñi topp ci nga xam te ne mooy Leewtoo TV tey nag dañoo am gan ki ñuy daral du gan sax borom kër gi la ñuy wax mais dañ koy dalal rek en tant que promoteur war a fas yéene waxtaan ak moom ci ponk yu bari ci làmb suñu la nuyoo DG rek nga nuyu internet yi ñëw yéen ñoom. waaw ñu ngi leen nuyu Ndeye Mbacke di nuyu équipe bi nga àndal di nuyu internet yi di nuyu ñi nga xam ne ñooy suivre Leewtoo TV di nuyu bépp amateur ak bépp sénégalais bu nekk si réew mi ak bitum réew donc ñu ngi nuyu ñëpp. DG. démb. Hmm. CNG amal li nga xam te ne mooy ndaje ak ñi nga xam ne ñooy acteurs yu làmb yi maanaam promoteurs yi. Mhm. lan lañ mën a jàpp seen réunion pour promoteurs yi ñëw waxtaan ak ñoom si li nga xam ne moom la état décidé woon donc état li mu décidé woon mooy ñu def ubbi saison bi huis clos ñu ubbi ko premier mars huis clos donc ñu waxtaan si comme état la aussi ñu ñu nangul ko état mhm. mais ñun aussi promoteurs yi ki nekk am na réalité xam nañ réalité làmb tey. huis clos bi xëy na mën nañ ko def ndax période bu toll ci période boo xam ne Covid bi Covid 19 bi la nekk loo xam dafa lëmmee addu àdduna mais bu weesoo loolu ñëpp xam nañ ni làmb ak euh, huis clos mënul ànd donc nangul leen ko état mais dañ aussi ñu ñu am promoteur il faut état dimbala ñu donc mooy accompagner promoteurs yi parce que tëgg huis clos mooy du am spectateur du am kii téléspectateur donc ñooñu bu ñëwul séance yi donc tey jii doo am benn xaalis donc yeneen yeneen modèle économique yi nga xam ne si nga war a si nga war a moom mooy jumtukaay yi nga war a jël comme lu mel ni PPV ak leneen loolu mënu tax te nga rentabiliser sa li ngay financé investir si si làmb ji moo tax ñu ne ñun léegi bu fekkee ni état dinañ accompagner naam ñun di dañ continuer di def làmb mais bu fekkee état état accompagner wu day difficile tey jii pour promoteur yëpp def. Mm-hmm. donc su loola la la ñu wax ki ñu ne ñu léegi dinañ dem waxtaan ak ministre bi. parce que aussi ñoom CNG ministre bi lañ fi teg donc do fédération boo xam day jël dogal mais euh, structure boo xam ne état moo ko fi teg donc ñoom lépp lu ñu jël comme décision si état lay jógee donc comme si état lay jógee ñun aussi ñu promoteur ñu dem gisante ak état waxtaan ak ñoom si loolu loolu la ñu tënk mais ministre bi aussi suñu père Gaston jot na ko mais comme dafay voyager dañuy xaar ba mu ñëw ñu seeti ko waxtaan ak moom pour mën a xool nan la ñuy def. ba affaire yi mën a yomb ba promoteur yi mën a tëgg parce que làmb sénégalais yee ko bëgg àdduna moo ko bëgg donc du yoon ñun en tant que promoteur ñu bañ a tëgg saison bi mais incha allah dina wax état ba état yombal affaire yi ba ñun lu si soxla aussi état defal ñu ko pour que làmb ji mën a am. ci noonu DG ñu gis ba réunion bi jàllee. dafa mhm. am ñaari pàcc. Mhm. promoteurs yi ne dañuy tëgg. ñii duñ mhm. tëgg. yow fan ci pàcc nga faree. waaw xam nga man de de dès ñu ñëw si làmb ji waxoon nañu bokkuñu si benn association donc ñun amuñu benn association boo xamante ne bokk nañu bokk nañ si mais quand même lépp lu ñuy def si intérêt làmb la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy bokk donc association position bu ñu mënti jël rek ñun bu fekkee intérêt làmb la rek ñu fa la ñuy bokk mais amul benn association boo xam tey jii on est membre dans cette association boo xam ne association promoteur la ñu. du ñàkk aussi décision souvent groupe bu amee am na ñu si anam ñu dul ànd. donc ñu si ñu si ñu si àndul moo ëpp tey ñi nga xam ne ànd nañ si donc ce qui veut dire majorité bi mooy ñi nga xam ne ànduñu si donc ñun aussi fa lañ bokk bien que naam mën nañ tëgg làmb mën nañ tëgg mais jàpp naa ne li nga xam ne ni bu ñu buy xool yow li nga li nga mën a def rek mais xoolal mbooloo mi nga xam ne ñëpp si lañ bokk nekk promoteur am ñu am doole am ñu amul doole donc si majorité boobu lañ bokk. mooy tey ànd na ak ñoom pour gisante ak état waxtaan ak moom xool état nan la ñuy accompagner promoteur pour ñu tëgg naam bu ko deful aussi lu tax aussi nit ñi aussi ñi si bëgg a tëgg am nekk dans les dispositions incha allah dinañ tëgg. ci noonu nga taxawal combat bi nga xam te ne mooy nar dox ci diggante Tapha Tine le du Baol ak nga xam te ne mooy Boy Niang doomu dëggal boobu est-ce que pare nga pour tëgg ko wii ko waaw pare nañ pour tëgg ko parce que d'ailleurs jàpp nañ date le 25 lañ ko lañ jàpp date le 25 juillet. tombeek cinq jours après tabaski incha allah donc moom lañ jàpp daj pour tëgg ko donc quelque que soit ak état accompagne war a accompagner wuñu incha allah ñu dinañ tëgg dinañ tëgg dinañ ko tëgg mais dañuy nekk ci masse bi nga xam ne mooy majorité bi pour dem waxtaan ak état pour que état aussi xëy na te jàpp nañ ne jàpp naa ne bi xëy na balaa daj bi di ñëw xëy na di ñu ñaan suñu borom mbas mi jóge fii ba ñu mën a revenir si si condition yi nga xam ne mooy condition normal pour tëgg làmb ma nga noonu ah gars yi ko doon déglu di ko xaar di ko laajte date baa ngi noonu le 25 juillet incha allah Tapha Tine Boy Niang. Hmm. DG. Hmm. ci li ñu for nee nañ 300 personnes la ñuy may ku tëgg làmb wuyu ko la. est-ce que hmm. dem ñaan ñu dolli leen yokk. waaw loolu loolu ndey bokk na si li tax ñuy dem di waxtaan ak ministre bi parce que 300 personnes. du du ñu ñuy may promoteur bi mais képp ki ñuy nekk ci stade bi yëpp la mi organisateurs yi mi waa CNG mi. commission yi nga xam ne commission yi bokk si affilié wu ci CNG mi commission arbitre commission médicale ak manager yi ak ñëpp nga acteurs yëpp daal la ñu wax trois cent personnes lañu la ñuy wax mais ñoom ba ñu defee calcul ñu ngi see ñu ngi retrouvé ci deux cent soixante cinq personnes donc am na trente cinq personnes dañ ko bàyyi dañ ko def genre dañ ko bàyyi pour jagleel ko promoteur pour bu amee ay invité wala bu amee ay ganam mais ñëpp ñëpp ñi nekk si stage bi trois cent personnes la ñuy nekk mais jàpp nañu loolu tamit lu tuuti la. parce que xool nañ fi football bi xool nañ fi championnat d'Europe bi ñu mu demee xool nañ aussi championnat d'Afrique bi mu mujj si xale yi xam nañ ni mu demee donc ñu dem nañ ba cinq mille places ñu dem ba final bi ñu def ko presque dix-sept mille places donc fi nga xam ne vingt cinq mille places la pour respecter distanciation war nañ sa mën a minimum un quart bi mi cinq mille places donc loolu bokk na ci li nga xam ne tax na tey ñu bëgg a dem gisanteeg autorité bi pour waxtaan ak moom pour que mu may ñu 5000 places yooyu dañuy permettre ci 5000 places yooyu boo ko amee nga mën a yow say dépenses courantes yi ngay am si stage bi noonu nga mën ko régler en attendant xaar li lay état di appuyer wala li nga xam ne ni moom ngay moom mooy sa revenu ci pay-per-view bi parce que pay view bi nekkul da nga koy def tey rek si saa si nga jot xaalis bi il faut mu am temps boo xam ne si ngay jot xaalis bi donc nag il faut nga am xaalis boo xam ne sur le champ moom ngay am pour mën a def sa yenn yoo xam ne mooy dépense quotidienne bi quoi ci lañ ñëw. PPV boobu nga jàpp combat Tafatine Boy Niang PPV nga ko tëgg wala ngay am collaboration ak yeneen waaw ñun dès le départ dañu amoon collaboration ak RTS donc ñun dañuy jàpp ñi làmb pour sénégale yi la même buñ ciy liggéey ci si investi war nañ ci gagné mais aussi war nañ pri waruñu ko privé population yi moo tax ñu dem gis RTS bi nga xam ne suñu partenaire euh, euh, suñu partenaire boo xam ne naturel la. ñu yàgg liggéey ñoom depuis que ñu dugg si làmb ji ñoom la dem toog waxtaan ak ñoom def affice yi muy ñaari affice parce que am na Garga see ak Sa Thiès aussi boo xam ne Covid bay taxaw ñu mettre ko en stand by mais woo aussi jàpp leen date pour le quinze août incha allah ñu mën ko ñu mën ko tëgg donc RTS dañ si àndal liggéey ci mais ak situation nu mu toll nii dina laaj aussi ñu waxtaan ak ñoom pour mu gën a yomb si promoteur bi incha allah. ci noonu nag dama lay sàcc Garga Mbossé Sa Thiès. Ah. ñu bëri di ko laam-laam combat bi dina am wala du am kan moo koy tëgg. non Garga Mbossé Sa Thiès dina am incha allah parce que dañ loolu lañ dem xaar lañ dem juste ñu ñu ñu am si lu leer si fu ñu jëm parce que dem mënoo affiché bu nga joxe xaalis ba pare te xamoo foo jëm. Mm-hmm. donc comme tey leer nañu euh, saison bi dina ubbi le premier mars. maintenant ñu xaar xool état lan lay wax ne def ñu accompagner lu ñu gën ci am une visibilité ñu ñu ñu mën a jox lañ avance pour mën ko tëgg le 15 parce que jàpp naa ne di le 15 août incha allah suñu borom dina def Covid bi jóge fi bien que vaccin yi ñëw na donc naa dina gën a gaawal Covid bi muñ fi jógee ba ñu mën a tëgg ñaar affiche yooyu. kon ne saa ci Pape taxawal incha allah taxawal nañ ko tey waxtaan naa sa Aziz ce matin te je pense que ni loolu loolu dañ si taxaw incha allah. nga jëmmal ñaari journée sax la yu mag a mag a mag parce que mm. ñaar ñooñu lay wax wax espoir ay espoir lañu. Mm. est-ce que yaa ngi ut ay sponsor ku waaw xam nga Covid moom orange sponsor yëpp dafa bloqué c'est-à-dire tey jii dem boo xel mayul mayu la sax nga dem di waxtaan ak sponsor ak fu situation bu toll. d'abord respecter mesures barrières yi tey difficile foo dem aussi pour nga gis nit ñi day xaw a jafe parce que situation moo ko laaj donc bu ko situation laajee aussi da ngay mën a toog. dal xaar ba affaire yëpp xaw a sotti mais foog naa ni ko am nañ une visibilité saison bi ubbi na vaccin yi ñëw na jàpp ne ni aussi fii ak jël nañ date boo xam ne mën nañ am temps donc dinañ gën a am temps waxtaan ak sponsor yi waxtaan ak ñuy accompagner ñu accompagner ñu. incha allah. fan la gis hmm? ma ko tëgg ak ko fi ak ak allah dinaa ko tëgg mais day fekk moom du huis clos moom dañ. tant que wuy kolo bi dañul moom du ko mën tëgg parce que wuy kolo waaw parce waaw moom àndul parce que lutte simple moom presque boo xoolee ñi ngi ñi siy jënd billet maximum deux mille francs la donc est-ce que ñi ñi jaral ne nañ pay-per-view si si lutte simple xamaguñ ko ak lutte frappe bi testé nañ ko xam ne ni nit ñi dinañ jënd mais lutte simple bi waruñu donc moo tax du ma si aventure wu tant que ni huis clos bi dañul. mais su dañee daal mën nañ xaar waaw bu dañee moom naa def au moins deux journées mm-hmm. tey bu dañoon tey tey tey suba mu nañ tëgg deux journées waaw ah, mais nag comme dañagul te nit ñi tàmmuñu huis clos wala jënd pay view wala jënd kii pour seetaan si lutte simple moo tax ñu préféré xaar ba huis clos bi jeex incha allah ñu tëgg ñu tëgg lu simple. déjà kontaan naa bu baax lan ngay yóbbante internet yi. waa internet bi xanaa di lañ wax ni saison bi ubbi na le premier mars la état bi wax donc ànd nañ si li état wax mais am na. conditions yi ñu wax mooy état accompagné te ñu ngi ñaan président Macky Sall ak gouvernement ak le ministre Matar Ba ñu jàppale promoteur accompagné lañ donc demande woon nañ ay devis yi jox nañ leen devis bi maintenant ñoom ñoo xool na lañ koy arbitré ba nga xam ne promoteurs yëpp yu ndaw yu mag ñëpp dina leen mën a jàppale pour que làmb ji am parce que Sénégalais dañ bëgg làmb te ñëpp a ngi koy laaj donc wax internautes yi mën nañ suivre Leewtoo incha allah làmb dina am dina nekk loo xam ne aussi mooy lu Sénégal donc di wax aussi internautes ji ak képp ku ñu suivre que nii Covid bi jógeegu fi mi ngi fi naam euh, vaccin yi ñëw na mais nañ gën a respecter gestes barrières yi parce que je pense que loolu c'est primordial bu ñu ko respecter rek incha allah Covid bi na fa teel a jóge ba ñëpp mën a retrouver stade yi ak arène yi pour mën a suivre làmb donc di jëla jaajëfal di jaajëfal équipe bi nga àndal donc di jaajëfal bépp képp kiy liggéey si Leewtoo di wax ni liggéey bi commencé na comme saison bi commencé na donc nañ si lu ñu ñëpp incha allah. jaajëfal bu baax ah, mbokku internet Leewtoo TV loolu moo nekkoon li xew tey waxtaan ak nga xam ne mooy DG dégg nañ fi am date yi daaru na information bi jàll na leen jaajëfal bu baax leen jox dig daje ëllëg ci beneen numéro incha allah.